fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne danañ daje te danañ dikk yéene ci jumaa ji ni ñu séntu weer wi bu ko defee waa commission bi danañ dem ci sawu jumaa ji séntu ko noonu def nañ ko bi ko defee ba toog ci sawu jumaa yi jumaa ji am nañ xibaar yu baree bari yu nu xamal ne weer wi feeñ na bañ defee loolu it jokkoo nañu kilifa yi ñu war a jokkool yëpp ba xam ne léegi kon weer bañ bañ dëgëral loolu ba xam ne weer wi feeñ na nga xam ne suba ci àllarba ji mooy doon benn fanu ramadan na ko ñëpp baax xam xam ne weer wi feeñ na suba di àllarba mooy benn fanu ramadan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, mbokk yi kon dégg ngeen kàddu yi nga xam ni moom moo jógee ci ki nga xam ni mooy sëñ Abdou Diop euh, sëñ Abdou Diop bokk ci jëwriñu Daaray Kamil fii ci euh, masjidi Touba waaye wax ci turu itam mboolem commission bi nga xam ni ñoom ñooy saytu wàllu weer bi xam ngeen ni mi ngi feggoo ki nga xam ni moo di sëñ Modou Mamoun Bousso sëñ Modou Mamoun Bousso mi nga xam ni mooy imam bi sëñ Abdou nan la dëkk bi nga indil nu tuuti ci ni nga xam ni Cheikhul Khadim noonu la fonke woon weeru koor ak ñu dëkk bi di weeru tedd wi weer weeru koor ko ne xam na ko xam na ko ndax eh, weeru wi moom bu bu dañoo bu ñoo wax ne bu mësaa jub si léegi lu ko lu ko waay lu ko waay laaj rek mu jox la ko. ndax ndax danaa gan gu tedd lañuy la ñuy teeru. loolu àgg na ci it bu weer wi di waay waaj a dëddu. du na ko gis kenn kooku wax ma ne tëlunu dara ak weer weeru tedd weeru tedd bi bëgg a tàggoo gan gu tedd gi bëgg a tàggoo. Mm-hmm. moo tax yaa yaa xayra dayfin moo tax mu mu taalifa ko. Mm-hmm. Ah. ba kon xam nañ ne euh, nam ko daa fonke moom euh, xam na ne weeru alxuraan la alxuraan tàbbi na moo tax yaa xayri lay fi da ko da ko da ko lépp lépp la euh, ramadan rek la ci la ci dem dem dem ba dem na ba wa àgg ci ne maanaam weer yu moom bu terewoo lépp léppam de dugg na ci biir weer maanaam du na ko toog xam leen lu dul weer weer weeru koor kon nag nu xam ne weer weer teru na woo xam ne buñ ko jàppee weer woo xam ne danay ba bëccëg bi rek guddi gi ñu nekk ko ci ay ay ay mhm. ñu xam ne ni ni bëccëg bi teddee nii la guddi gi teddee dana war bu nu wooree guddi guddi gi bëccëg bi bu bëccëg bi jeex mhm. bu guddi gi nu màgg nu màggal nu dundal guddi gi ci ay naafila ak jàngal xuraan te matandi te wattandiku nag wax lu dul noona maanaam lu mel ne ay rambaaj mhm. ay jëw ak yooyu yëpp ndax bari na koo xam ne da dana dana woor ba jëm so du am ci kooram dara ta lool la ko waral di jëw nit ñeeg di wax lu dul noona moo moo koy waral kon kon jëmmi Tuubaa gi nag moom lu ñuy dundal bis bis bis weer wi la ñuy doon bu weer wi jubtee ñëpp ñëpp dañuy ànd di jàngal xoraan ak di woor ak ak di jàng xasida mm-hmm. bu weer wi jeexee ñoom naka jëkk loolu Touba moom loola baaxoo waaye nag ñu xam ne nag euh, muy tubaak feneen mm. weer wi dugg nañ ko waaye bu jeexee nan xam ne loolu am nattu la ci nun boo xam ne mm. dañuy nattu ngir bëgg léegi nu mën a jàllale loola mm. waaye buñ fab alxuraan jéeg njàng meeg yooyu rek ne ca bam ba mu jeex nu ne nan toog nan toog nag léegi war nañ jeex na nu xam ne fi ni ñu koy tàmbalee no bu jeexee day fekk suñu yaram war koo miin ba nga xam ne nan war a def ci lu baax lépp de loolu dañ koy continuer wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bismillahi rahmaani rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin sayidina mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di di ñaan wax ne ñoo ngi ñaan suñu borom ci barke borom Tuubaa mu defal na weer wi muy weeru jàmm ñu teewaat fa ay déwén yu bare bari eh, ñu teewaat ko ay déwén yu bare bari yu ànd ak jàmm ngir sun mooy ki nga xam ne moo nu xéewale bis bi ak weer wi xam ne yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum ci gàttal rek ginnaaw buñ amee ndigal ci Seydil Muxtaar mi nga xam ne mooy alxalifatul aam li taifatil muridin ah, ak Seydil Muntaqa mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ñi ngi xam le ne weer wi feeñ na ci ngoonuk talaata ji suba di alarba di benn fanu ramadan ahaduhu llahu alayna wa aleykum bil yumni wal xayri wal barakaat ramadan nag moom yomb na waxtaane lool ndax lu jiitu weer wi taru ñu bare bari def nañ ci ay waxtaan borom xam-xam yi muy weer woo xam rek weer wu mat a wormal la ndax ah, am nañu daje ci ne Euh, guddi gi gën ci guddi yi ci lene mm-hmm. ci biir weer wi euh, kon nag guddi googu nga xam ne sunu boroom dafa wax ne euh, tanazzalul malaa'ikatu wa ruuhu fiihaa bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajri mm-hmm. guddi googu xibaar yi gën a wér maase nañ ci ni ci weeru kor wi la mm-hmm. dafa màgg màgg nag ba ñun dañ koo nëbb ci biir at mi waaye nag sukkandikoo nañ ci wax yu wér ne mi ngi ci biir weeru koor weeru koor wi euh, xam nañ ni mi ngi ci biir am nañ ci ay tegtal it yoo xam ne borom xam-xam yi jiitu woon nañ wax euh, fa muy nekk ci biir weer wi waaye bu ko defee rek nañ boole farlu ci weer wi lépp màng ko bis bu dikk rek nga jàppi ko muy laylatul xadar waaye bëggoon na nga xam lenn ci ay ngëneelam rek donte yëpp neexut a matale itam ngëneel yi de moom mooy weer woo xam ne wii moom awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa axiruhu itqun min annaar loolu rek doy na ci njëlbeen gi yërmande la digg bi njëggal la mujj gi ak ngoreel ci sawara la loolu rek doy na eh, yi nga xam ne gën na cee mata moytandiku ci weer wi itam waaw li ci mata moytandiku mooy mboolem luy xeetu caaxaan waaw ndax euh, xawlu zuuri wa amalu zuuri lu ma tawtandiku la ci weeru koor weer yëpp lañ ko war a watandikoo dafa rawee ci weeru koor waaw ndax dañoo wax ne koor du ànd ak waxi caaxaan wala jëfi caaxaan waxuñu nag sax ak ma yàlla kooku moom kenn waxu ko moo xam weeru koor la wala lu weeru koor waaye nag weeru dafa màgg ba nga xam ne euh, lépp loo xam ne lii nit def na ko ci ci lu baax dañ ko koy fulal ay la soob yàlla lum ci def ci uh, ay safaan yi naka noonu dañ koy ful moo tax ñuy wattandiku lool uh, def ci lu neexul yàlla di bëgg lool ñu fonk jaamu yàlla gi ñu ciy def te lu ci waaye man boo doon def benn nga def ko fukk mbaa téeméer ndax bu dikkee balaa del seeti li fukki weer ñaar ci kanam waaw bu ko defee na nga fexe ba fàggu ci loo xam ne lii dana dana nekk lu dal xel daal Euh, gis nañ lu ëpp njalbeen gi ñetti fan rek ñu dem ci naafile yi waaye lu bu jàllee rek ñu mel ne daa bokkutoon ci weeru koor wala mënees na ko sàggane waaw loolu nag moom daa mat a bàyyi xel ndax xiyaam bi moo yaam bi ñoo ànd hmm. taxawaay bi ak koor gi ñoo ànd ah, ku mën a naafilal sa bopp ab kaamil man nga ko ànd ak mbooloo ma nga dendal te ñu war la ngeen def ko boo ko mënut nga dem fa ñuy ca jumaa ja wala ca jàkka ja fa ñuy naafila alxuraan nga ànd ca ndax day weer woo xam ne ci la sun borom wàcce alxuraan moo tax salaatu taraweex fukki rakk ak ñaar ak safa ak wiitar taamu nañ ko ci jamono jëpp waaye bu weer koor dikkee lay raw kon nag koo xam kii daawoo ko def da ngay fexe bi weeru koor yu dikkee nga fexe ba fukki weer yeeg yaa fan weeru yëpp nga sax ci ànd ci. salat tarawih bi waaw loolu daal moom kon mooy fàttali gi ak gi